toogoon ci posture am boobu tey il serait le boss de l'opposition mais tey Izi il serait même le réceptacle d'un autre électorat ça veut dire tey dafa doon egg ci fu muy ñoree fu muy amee cette maturité parce que man man ba tey gëm naa ne Idy kenn bu ko xam-xam sur le plan politique attends déclaration de politique Euh, général bi Idrissa Seck defoon en tant que premier ministre mais c'est dans les annales toujours. D'accord. donc mais mais pour man euh, il dit il a raté le Euh, ñi ñi mën ñu wax ñi mën a wax mënuñu baa. gis nga affaire yi jaxasoo <laughs> alors non sëñ Saliou Saliou Joseph alors euh, dañuy dañuy ñëwaat ci F24 muy mouvement bi nga xam ne dafa dafa euh, tënk les forces vives. ay loolu kin mu nekkee force vive. madame Sénégal parce que la société civile. également yaatu laaj bi samp mooy est-ce que. force vive yi nga xam ne ñoo tënku ci F24 est-ce que mën nañu. liggéey ba fexe le président de la république Macky Sall bañ a am troisième candidature su fekkee waaw nan lañ koy defee ak fan lañ ci war a mën a jaar déjà problème yaa ngay démarrer un membre de l'opposition nga xam te ni juge dem génn na ne moom signéwul euh, loolu parce que am na peut-être ay raisons lu tax signé wu ko mais dinañ ci ñëw mais déjà est-ce que liggéey bi war na mën a mat ci euh, F24 bi ak entité yu mu yu ko composé yëpp ci ñu réussir à barrer la route euh, ci président Macky Sall mu bañu a présenté wu euh, atum 2024. est-ce que juge dem dafay dil ak Macky Sall. comme ku bokkul ci dara rek ñun la dangay ngay. dégg xam nga question xam nga des fois bugg président Bougane mi loolu lañ ko waxaloon. bi nga xamante ni si dem na ci installation yeewi askan bi. bokk ci ñu ne Macky la àndal ñu ni Macky la àndal. jékki-jékki ñu gis ni Macky cherche euh, le régime cherche à l'asphyxier des deux bords. tey juge dem ma nga fa dem te jàpp ma ni ci jotaay boobu. am na koo xamante ni si gën nga crédible juge dem ci démarche ndax bi muy doxal ci wàllu politique am na moment boo xamante ni si dafa euh, toog moom gis ni la justice ni mu ko jàngee ni mu ko xamee ni mu ko pratiquer demewul ak moom mu démissionné. démissionné mm-hmm. pendant ce temps d'autres ont été radiés d'autres ont été ont, ont le serment professionnel ñu dàq leen ñu ngi ñu ngi quémander ay post di ko négocier ci suuf d'autres ñu ngi lancer ay mouvement pour ñu yokk leen doole ci biir nguur gi ñu nekk jox leen ko pendant ce temps lui il pour faire face kon jàpp naa ni xam na bu baax li nekk dans son intérieur mais pour revenir dans sa globalité jamono moo toll ci ay mbooloo mbooloo yu baree bari ndax bu kii amee doole fukk kii am doole ñaar fukk kii am doole ñeent fukk bu ñu dajaloo seen kàttan day gën a bari li wolof di lépp naan ñaara mën kenn te ñett du bëri waaye pour ñett yooyu noonu mën a am il faut ñu renforcer ndaw ñi ba ñu mën a bindu te bu ñu bindoo ñu jot seeni carte te ñu fexe ba ci bindu bi nit bañ a bindoo plateau ñun la si bi xotaan ngay wootee. quand même ñu bañ ko bañ a labaje carte non parce que parce que engouement bi ma gis sëñ Saliou nag gars yi amatul lu ñu lay de. mais bien sûr ñu ngi bind ji bu baax a baax a loolu dinañ ci ñëw F24 dafa amoon lu ko gën a gaaw. Bougane dafa tëral non au troisième mandat. mooy. lu gën a yomb ñu ni fekk nañ mu tëral ko ba pare nañ ci ànd pourquoi créer d' autres entités xam nga luy waral ñuy créer dootul autres parce que y des gens yoo xamante ni si dans n'importe quelle coalition bu ñu ñëw il faut que ñu doon la tête de pont su ñu doonul tête de pont bi rek su ñu nekk su ñu jiitewul yëf yi rek amuñ ci poigne bu am doole rek. bul sonn. seulement bii est-ce que dina demee noonu parce que l'initiative aussi li ko li li ko lay taaye mooy c'est la société civile moo invité amul benn parti politique wala coalition bu invité mais la société civile bi invité xëy na foofu dina gën a yomb ci dajale leen ñoom euh, parti politique yeeg mouvement yooyu noonu ci ñu bañ a xëy na. Euh, récupération politique voilà récupération politique bañ ci am. xam nga man dama dama mus a wax. Euh, que y une société il y une organisation politique. émaillé d'une infime partie de la société civile dama wax ni société yi nii la tëggee pour bañ nit ñi jël yenn wax yi di ko yóbbu dafa am société militaire bu taxaw nii muy ñi incarné wàllu militaire am société bu taxaw nii doon société politique muy ñi politique nga xam ni mooy parti yeeg association politique yeeg yooyu am société bu taxaw nii muy société civile bi muy man Cheikh Oumar Talla yow woykat bi sëriñ yi bu nu gisee ni ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ni dañuy incarner société civile suba ci parti politique yi la ñuy bokk. Mhm. te la société civile certaine une certaine société civile qui finit toujours au palais qui a toujours eu des nominations par des régimes. ah bu ñu bu ñu demee ba jël ko ci ñoom ñu daal di taxaw ni société civile lañu mais bon sang c'est une organisation politique la chose la plus sérieuse bu dee gëm nañu li ñuy taxawal am na ci ñoom ñi opposé wu. koo xamante ni si dafa ni waa ji warta def troisième mandat ci jamono boo xamante ni ñoom ñépp ñu ngi taxaw ni dañuy dem législative moom bokkul mu génne ay jumtukaayam di battre campagne pour ñu xam ni moom il est cohérent avec ses idées donte bokkuma ndax parrainage bi bloqué nañ ma waaye dinaa battre campagne pour kii fi ne mu bañ a jàllale mm-hmm. moom ca jamono boobu mu tëral non à la troisième candidature mais na ñëpp ñëw booloo buux ci loolu mu dem ce n'est pas être dans son parti ni dans son mouvement ça aurait été une démarche beaucoup plus claire pour ñëw nag ci taxawaay bile bo jamono moo toll fu nit yi di booloo te mbooloo moo gis dafay jur doole te bu dee mbooloo mi taxawaay bi sérieux na am na am na dëggu du du ma ni mooy tere bu dee Macky Sall day dem parce que Djibo Ka avait dit feu Djibo Ka yàlla na ko yàlla yërëm Euh, taawum bu jigéen bi wàcc liggéey maa ngi koy jaalewaale di ñaan san borom xaare ko aljana dafa waxoon ni nul na sait ce qui est dans la tête d'un président kenn mënu wax fi mu toll nii lan moo nekk ci bopp Sall donte mu ngi teg jéego xam ni jéego troisième mandat lay teg ndax jéego yi muy teg ngir dëgëral ku wutul doo teg jéego yu mel nii. d'accord yaa ngi dégg dañuy jàpp ni ci jéego yooyu noonu la président Macky Sall nekk waaye déggagunu ko mu ni donte day wut troisième mandat artu nag dafa baax. te bu ñu nee opposition bi yépp dajaloo nañu la ëpp ca ñoom dajaloo nañu ngir ni président Macky Sall bul bokk troisième euh, bu déposer sa troisième candidature c'est dans leur droit ci période boobu nag dañuy nangul ku ku ku far ak Macky sàll daal ko damaa bëgg nga def troisième mandat et bu boobaa ce ne sera pas à nous d'arbitrer dans la rue conseil constitutionnel mooy valider candidature yi on va on va arbitrer à travers nos cartes loolu moom moo tax may wax ci parti politique yi li ñu war a njëkk a def parce que pour folli président Abdoulaye Wade bi ñu ne ko waroo bokk mu defoon dispositif transitoire ci modification bu constitution bu mille un bi légal mu bokk dafa dem élection premier tour dem deuxième tour donte seize personnes dee nañ fi te opposition bi leen génne woon muy ñoom Barthélémy Dias nee woon nu xamoon na ne amoon na sañ-sañu laaj ko waaye xam nga ñun politique yi rek kon c'était fait sciemment ba tax seize personnes dee. donc si nous sommes ci tournal bu mel noonu dañu war a taxaw jël les maanaam waajtaayu ci la ñuy jëm. la koy waral lay tax ñu am ca ndam mooy ay carte ñu fexe ba ndaw ñi boo bindoo dakaar wootee dakaar surtout boo bindoo Kaolack wootee Kaolack ndax dañuy bàyyi ndaw ñi bindu ba pare ñu yóbbu la yow nga bindoo dakaar wala wootee fii Case des tout ñu yóbbu la Sébikotane ngay wër yow jour vote bi ban bureau de vote nga war a wax yaa ngi dégg euh, euh. ba pare assuré moom zone yi nga xamante ni si ce sont des zones qui lui sont ku ne fa nga bindoo nga wote fa yeneen leaders yi def rétention des cartes à l'approche des élections ñu ne dama am ay financement indi leen ma jox leen financement yi jël carte électeurs yi ko parce que xam nañu zone bii ils ne sont pas favorables bu ñu demee élection dañ leen di gagné. donc yooyu noonu mooy combat yi nga xamante ni moom lañ war a jël donte nag booloo gi lu am doole la. ndax bu ñu jëlee loolu day permettre nit ñi bu ñu xëyee mën a voté ji. l' expression à travers les urnes mooy won président ni waroo bokk. très lu am solo la alors euh, Serigne yow itam sa euh, sa sa njàngat lecture bi ngay def sur cette question là mooy F24 naam ay entité la plus de cent vingt et quelques entités. Mm-hmm. ay parti politique mouvement société civile daal di koy euh, tënk alors loolu est-ce que mën nañu réussir ñoom seen combat bi ñu tàbbi muy au-delà xeex wàllu démocratie ci mim réew mhm. mooy troisième candidature bi mën nañ ko réussir est-ce que ci fexe baare le la République mu bañ ko pré mu maanaam mu bañ cee tàbbi ak bu dee waaw ban yoon la ñu war a mën a jaar waaw euh, d'abord damay apprécier initiative bi parce que Ablaye Wade bi mu bëggee def itam moom itam troisième mandat taxawaay bu mel nii la société civile bi amoon donc ba ñoom ay benn Siggil Sénégal ñoom ñëpp ñëw fekk si leen ci donc kon taxawaay bu yàgg la ci société civile bi donc man li ma ci mën a wax rek mooy man loolu suma xalaat bu gàtt la gëw ma ni ñoom actuellement nii war nañ mën a tere président Macky Sall mu déposer candidature am gëw ma ko ci plateforme bi ñu yor parce que Saliou Joseph junj am solo Macky Sall li nekk ci boppam kenn xamu ko moom moo ko xam. donc man pour man essentiellement tey débat bi fi mu toll mooy comment faire pour que troisième mandat bii nga xamante ni actuellement mu ngi koy yëtu donc bu mu ko am. Mhm. te loolu nag li ci Saliou Joseph wax dafa am solo mooy ci mbindu mi. tey bari na ay stratégie yoo xamante ni aujourd'hui le gouvernement teg na ko ci mécanisme yi ñu war a dem yóbbu ci élection euh, présidentielle yi tey mécanisme yooyu yëpp opposition bi waroon na fa mën a amal un débat sincère parce que benn ci mécanisme favorable lu leen tey ci gis nga ko ci fichier électoral bi gis nga ko ci parrainage bi gis nga tey ci délai bu gàtt bi nga xamante ni jox na te lu ne mën na cee xaw. parce que délai bu gàtt bi mën na xañ ay citoyens yu baree baree baree baree bare ñu jot seen carte. Mhm. pour mën a dem voté voté ji li ci war yëpp te nga xamante ni gouvernement bi daf ci waroon taxaw. pour que citoyens yi surtout les primo votants mën a jot orientation yu baax mooy communication officielle bi may wax pour ñu mën a dem bindu ji mën loolu gouvernement bi defu ko donc yooyu itam dafa war a bokk ci li nga xamante ni mooy ci plateforme bi parce que troisième mandat non au troisième mandat ou non au troisième mandat il faut que tamit des fois ñuy essayer di dugg dans les dans la réflexion de Macky Sall il faut ñuy jéem a imaginer un petit peu moom lan moo ne ci bopp bi lan lay xalaat à travers nag démarche yu mu teg ak yoon wi nga xamante ni wane ko donc ce qui est sûr et certain mooy que ni li ëpp ci suñu njor mooy candidature am moom dina ko poser li ëpp si suñ njort parce que li ko war a permettre une validation très rapide boo xamante ni parce que question boobu c'est une question boo xam réglé na ko parce que man souvent damay wax ni président Macky moom bu nammee dara fii ak ñaari at balaa ñuy egg ci ñaari at yooyu dina fexe ba loolu dina ko togg te kenn du ko yëg. mu réglé ko bu yàgg mu réglé ah. yàgg. ba nga xamante ni pour moom dootul doon débat moment bii nga xamante ni tey opposition bi taxaw nañ ci bu mu am troisième mandat. moom ba mu koy def si xelam di ko togg mën naa ne il y cinq ans de cela ba mu koy def di ko togg donc tey nga xamante ni ci mécanisme yi le conseil constitutionnel cour suprême yëpp teg na fa ay nitam yoo xamante ni tey bu déposé candidature am dafay yomb pour mu jàll. donc moo tax ma ni tey véritablement combat bi nga xamante ni opposition bi tam nañ ko boole ci seen plateforme tey mooy nañu fexe ba ndaw ñi dem inscrit ci liste électorale yi donc délai ni tey rejeté nañ leen ko. ak fichier bi parrainage bi surtout le le fichier électoral fichier électoral ba la fa ne Mouhamed kenn xamu ko. Ah, yéeme na kenn xamu ko. d'accord am na stock dormant. Mhm. ak stock mort boo xamante ni aujourd'hui ñu ngi si biir fichier bi te kenn xamu ko. opposition bi jotewu ci. très bien moo tax daal may jàpp ni véritablement. Mhm. malgré l'initiative bi nga xam ne dama koy apprécier bu baax man gëw ma ni cette plateforme la mën na contre Macky Sall pour mu bañ a déposer en contre contrepartie nag mën na ko contrecarrer pour mu bañ a am un troisième mandat. mais pas pour mu bañ a déposer. très bien loolu leer na alors Cheikh Omar on va on va revenir avec euh, euh avec toi euh, nga gën a yaatal yow itam joxe sa point de vue par rapport à cette question mais dañuy dem rek jëli une petite page de publicité marquer une courte pause su ko defee revenir sur le plateau et puis continuer le débat tout de suite. Dakar 2022 Sen TV classé première télé